nataal fukk ak juróom-ñaar soldaar si daaj nañu Jésus ci bant ba mu faatu ci jamono yooyu noonu lañu doon reyee defkati ñaawteef yi bés boobu am na ñaari saay-saay yu ñu jàppoon daaj leen ci bant ñoom it wante Jésus doonul woon saay-saay nit ku jubla woon deful woon lenn lu ñaaw faatu na ngir ñaawteefu ñeneen yi faatuwul ngir bàkkaari waa jamono jooju rekk wante ngir bàkkaaru yeneen askan yi ñëwagul woon deeyam raaf na bàkkaaru képp ku gëm te nangul ko faatu Jésus mooy sarax bu mag bi ak yaramam bu amul benn bàkkaar fayee na deretam bàkkaaru àdduna bi yàlla nee na benn sarax amatul solo ndax Jésus mooy sarax bi mat